tàngoor bi après en en général euh, mm, bu ñu la dénkee poste de responsabilité moo am accident bu fa am par acte de de responsabilité yow mii kii yaa njëkk dem yaa war a njëkk démission parce que da ngay xam yow sa faute la parce que li nga Grèce euh, train bi train bi nga xam moo ko hmm? def accident te cinquante morts la cinquante morts euh, peuple bi jóg bu ministre bi démissionné ñu ne non l' état mooy démissionné pas ministre bi tu vois daf ko hmm. daf ko daf ko émettre. c'est arrivé en Tunisie ou te mi ngi euh, mi ngi tombé woon neex la muy sibil xam nga cinquante morts yi amoon accident moment boobu nga gis ni hmm. euh, différence mode de pensée et de voir hmm. sa psychologie de la population mooy sociologie lañu quoi domaine sociologie psychologie parce que tamit xam nga fii Sénégal dañu manqué yooyu maanaam nañ ko manqué euh, nit ñi seen euh, ay docteur ay psychologue fii nit ñi seen yaakaar docteur yaram yi sax mais ñoo ko nit ñi dañuy feebar feebaru xel mais duñ ko xam. parce mhm. que yaa ngi dégg wax. parce que jànguñu bi. Ah, waaw parce que euh, éducation ma damay wax toujours ni Sénégal amuñu programme d' éducation nationale. Mhm. suñu wax bi de léegi ñëpp ñëpp a nga wax de doyen. absolument wax bi léegi mu doon dëgg de bu yaay. programme ñu ne ma lu am ma ne leen am ngeen. am ngeen na projet d'instruction mm-hmm. instruire ak euh, ak former bokkut ak éduquer mm-hmm. bokkul mm-hmm. te éducation premier principe éducation mooy l'information léegi l'information bu jàllul rek éducation fausse na fausse na rek mm. tout à fait tout à fait